donc euh, di am mbégte déjà di am mbégte ak euh, bànneexu euh, woote sa ay xarit sa ay nit ñëpp ñëw uy si la donc lii bànneex la bi nga xam ne wax dëgg yàlla mënu ma ko fay di bég nag ci kàddu yi nga xam ne ñoo fi jot a rot ndaxte boo leen seetloo damay wax gars ne dafa am nit yu am maanaa yi xam ne dama leen xalaatoon ci jotaay bi tey yàgg naa xaadim ne ko ma sax bëgguma woon wax parce que jàpp naa ni li ma waroon wax peut-être bind naa ko pare donc amatuma lu ma wax mais mu am ñenn Sénégal yi nga xam ne dama leen seetlu gis seen taxawaay gis seen itte gis seen njub ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk ma jël la peine woo la ne la yow bëgg naa nga ñëw euh, jël parole su jotaay boobu ñëw waxtaan donc euh, ni nga ko waxee si ñoom Pa Alla Kane euh, Pa Alla Kane modèle la pour Sénégal bi nga xam ne Sénégal daf ko war a njukkal depuis avant euh, nos semblants d'indépendance. Parce que par la grâce de Fernand, nous, nous prétendons être indépendants. un peuple qui prétend être indépendant sans l'être. Donc, euh, depuis léegi mu ngi sommes combat. Donc, euh, di Bec, si une clé d'or, on a dit le parole, parce que clé d'or, euh, dans la République, ku xam République bi la, Makhtar xam naa ko na jël parole incha allah moom it euh, mu ngi jógee ba Allemagne nit bu am taxawaay la donc euh, nekk si combat Sénégal en Allemagne loolu c'est pas c'est pas une dëgg yàlla par rapport à la république privée euh, duma leen jàngal lu bees su ma waxee ni euh, édition bi si boppam jaar na si ñaari maison d' édition ñu bañ ko ñu bañ ko édité oui ñoom neen joxuma leen un livre mais doon donne une bombe donc euh, ils l'ont refusé de l'éditer euh, purement donc euh, David moo tax ku ñu war a jaajëfal la ndax ñeme na lu ay moroom yu bëri ñemewul donc euh, muy une contribution bi nga xam ne wax chaque fois moo ko nee naa je ne pas avoir la vérité dëgg yàlla kese la nous avons pas la vérité simplement nag nous avons essayé de chercher nous avons euh, fréquenté ay bërëb yu bëri pour outil la bonne information nous l'avons confronté nous l'avons éprouvé sax à la limite am na si yu bëri yoo xam ne qu'on a réfuté parce que ñoo jàpp ni lii rationnellement yenul maana mais euh, nous avons voulu amener une contribution bi nga xam ne dafay nekk euh, benn ouverture de débat parce que on peut pas parler de de d'une république sans kenn ku ci nekk am ci gis-gisam sans kenn ku ci nekk apporte si euh, xalaatam mu am des choses yoo xam ne qui sont partagées parce que man fa la fa la écriture bi tàmbalee je me suis ñun li ñuy woowee Sénégal tey parce que dafa am un Sénégal censuré il y a Sénégal kon nous apprend pas à l'école qu'on ne parle pas ci médias yi yaa Sénégal bi xam dañu dafa mel dañu koy nëbb sax en réalité ma mon interrogation a commencé par rapport à la ville de Saint-Louis qui a été la première capitale du Sénégal en faisant des recherches je me suis rendu compte que Saint-Louis est le nom de Louis IX bi xam ne kooku li ñu tuddee Saint-Louis et que cette personne la li ñuy wax la les huitième croisade moom moo ko organisé woon croisade contre l'islam il a tué le plus de musulmans dans le monde et ñu koy sàggal ci dëkk bi nga xam ne Ndar dëkk jàng alxuraan la dëkk la bi nga xam ne Serigne Touba El Hadj Malick sëñ Babacar mais tous nos Serigne El Hadj Omar Fouti dañoo am histoire ak ndar je me di dit mais attends y a un problème wala wala man maa comprendre bu baax donc j'ai commencé à épier suñu dëkk yi benn par benn Dakar Dakar m'avait beaucoup plus fait rire même en réalité parce que Dakar euh, figure dans des cartes même de 1751 des cartes yi nga xam de Mauréon cartes yu yàgg yi nga xam ne et ñun dans l'histoire on dit ñoom proté la place Protet ñoom ñoo njëkk wax Dakar euh, ñii naan Dakar gi la parce que y avait des tamarins j'ai j'ai j'ai cherché des botanistes dem seet leen waxtaan ak ñoom mais malheureusement y a pas eu beaucoup de tamarins yoo la tax ñu tuddee dëkk bi Dakar donc c'était pas c'était pas vrai en réalité may laajte gaa yi ma non non euh, dëkk raw la ba Kayoor Kayoor rek Bawol Bawol yi ñoo dawoon ñëw fii làqu fi gaa yi tuddee ko dëkk raw dëkk raw bi dem bu commencé baawaan ñu tuddee ko Dakar mais ba tey ça m'a pas convaincu sachant que Dakar a été d'abord habité par des mandingues du ay lébu ñu njëkk dëgg dal lébu yi ils sont récents lébu yi ils ont erré sans territoire oui ils ont erré depuis ay ay ay parce que ils n'ont pas voulu l'organisation verticale bu société yi amoon dans les dans les royaumes wolof ils l'avaient refusé donc ils ont erré ba ba ñëw ba ba Jandeer ils sont restés entre le Cayor ak euh, la Pointe mais Dakar euh, lébu yi fondé wuñu ko les Manding ñoo ko fonde et ils avaient ils l'avaient appelé Kassurun Badji c'est comme ça qu'on appelait la région de Dakar avant ñu koy tuddee Dakar te Dakar bi tubaab bu ko tuddee c'est un capitaine de français le capitaine Jean Dakar moo fi wàcc fii xool ni fii je le tuddee naa ko sama gox parce que fii sama cap la le cap de Dakar il a inscrit ça sur sa carte en rentrant euh, gars yi tamit ils l'ont consigné sur les cartes et l'histoire est, partie gars yi ko sax adi benn kaa naan Dakar xam mooy Dakar gi dafa dàq moo dàq xaw ma lan alors que bon euh, pour dire que en commençant par les régions euh, Diankhel euh, qui la région de Thiès c'était son nom il y a qu'en 1904 la ñu changé tur bi tuddee ko Thiès qui était un français la bi nekkoon foofu à booru après Mékhé donc il s'appelait Mathias on l'appelait Thiès ba tey jii Mathias bu demee en Belgique ceux qui s'appellent Mathias on les appelle Thiès mais Thiès ne vient absolument pas du Sénégal ça s'appelait Janxel donc il y avait le Kayor ci kaw après ñoom ci max dëkk ñoom Ababacar donc pour dire que ñun on nous a menti sur presque toute notre histoire en réalité donc euh, Mansour mu ko wax léegi wala wala Pa Alla mu koy wax léegi on nous présente des héros dañuy wax ni kii héros la c'est des pères de la de l'indépendance mais ñun nous sommes toujours pas indépendants donc il y a pas eu de père et ceux qu'on appelle aujourd'hui les pères de l'indépendance xam ne qui ont toujours refusé l'indépendance maa ngi andi seen ay wax ñoom ñëpp dans le livre que ça soit Senghor que ça soit président Lamine Gueye ils n'ont jamais voulu d'indépendance ils ont voulu améliorer la situation des indigènes seen discours bi ñoo doon wax ni waruñu am indépendance il le disait clairement ne indépendance baaxul sans la France nous sommes foutus c'est ce qu'il disait moi je reprends seen ay discours officiels donc qu'ils ont dit à l'occasion de rencontres wala dans des parlements en, en, en Europe donc ceux qui pour euh, l'indépendance xam ne presque Sénégal on les n'est-ce pas c'est les gens du PAI ñoom euh, Paalakan ci la bokk c'est les gens de l'UPTA de la FEANF c'est les organisations yi xam ne mais qui se sont battus pour ñu am indépendance et ils ont été asphyxiés ñi on les a obligés à s'exiler ñi on les a emprisonnés ñenn ñi on les a tués ñenn ñi on les a radiés comme ñoom Paalakan donc euh, ñii ñooy les vrais pères fondateurs et ils sont méconnus du Sénégal actuel donc ma gis ni kon comme que on nous sert un Sénégal à travers nos ouvrages scolaires à travers les cinq les cercles universitaires kenn lu waxtaanee du vrai Sénégal parce que ñu si bëri sax déjà ñu ko xaw a xam dañoo yaakaar ne ko waxee on va les indexer ne kii ah kii daal yow esprit bu kii nga parce que gars yi bëgguñ seen réputation dafa am solo doo bëgg wax wax ñu ne kii waxi dof la yow saa yi dof donc waxi dof boobu la gars yi bañ ba bëggatuñu wax dëgg en réalité et c'est ce qui lii moo gangréné euh, suñu suñu dëkk bi donc may xool ba tey si c'est Ababacar li muy wax sur l'agression qu'on a subie pas plus tard que hier maa koy wax tey di instant nous sommes mercredi su ma laajee gars ci wolof comment on dit mercredi je suis sûr que si salle bi yëpp amul kenn ko wax wolof na lay woowee mercredi on va me dire alarba te alarba c'est une tradition arabe mooy yawmul arbaa le quatrième jour c'est comme euh, euh, talaata talaata c'est yawmul sulaasa c'est le troisième jour c'est arabe n'est-ce pas alxames c'est jour c'est pas wolof c'est arabe ajjuma c'est yawmul jumaati donc on a c'est la culture arabe bi nga xam ne effectivement moo jiitu tubaab bi parce que ñun on a subi une agression arabe pendant 13 siècles la traite négrière bu arabe yi def tubaab bi defuñu ko tubaab bi ils nous ont traité pendant 3 siècles les arabes ont fait pire les arabes yemuñu jël esclave la liggéey loolu la marqué au fer dañ doon dindi lamine noir pour bañ mu wax on a enlevé totalement la langue luy ñuy wax eunuque yu grec yi di woy les eunuques yu ñuy dagg seen cër yëpp waxuma tàpp mais dañuy dagg lépp euh, arabes yi ñoo ko njëkk def avant les grecs avant les donc arabe yi lu ñu woon noir mais c'est extraordinaire donc euh, moo tax su ma gisee hymne national sax Senghor naan euh, le bantou est un frère et l'arabe est le blanc damay tiit l'arabe et le blanc ne se sont jamais constitués comme no frères dañ ñu respecté wul sax en réalité ñi dëkk actuellement si dëkku arabe yi xam nañ li may wax l'arabe pour moom dans sa hiérarchie de création de Dieu jàpp na ni tubaab moo gën ci lépp lu yàlla bind li arabe yi ñoo ko gëm ah, pour ñoom tubaab moo gën ci lépp lu bind topp si ñoom arabe topp si les indiens topp si gëlëm les chameaux topp si nit ku ñuul c'est que chameau moo ñu gën c'est lii la tradition arab lii lay wax lii arabe la ko gëm et ça ne a jamais c'est pas pour rien ñoom Tunisie Maroc tous ces pays là ont ont ont, ont voulu faire partie de l'Union européenne bañ a bokk Union africaine c'est pas par hasard ils se conçoivent pas africains maanaam respecté wuñu noir sax en réalité donc man su may xool kon suñu histoire ñun dama gis suñu histoire de mensonges suñu ay drapeau loolu xam naa du ma si ñëwaat c'est dans le livre euh, c'est des partis états qui sont là ba si suñu premier drapeau en c'est le drapeau du du du PS UPS la rek donc euh, bi nga xam ne moo nekkoon après fusion ñoom non boobu sax BPS la mooy actuel après moo nekk SFIO moo nekk parti socialiste donc c'est un drapeau vert avec benn étoile bu rouge ils ont changé def étoile bu jaune kese donc c'était le parti qui ordonnait l'État ba ñuy ñëw 1960 c'est un groupe de trois partis ñoo ban couleur la ñuy jox Sénégal